mais um, <laughs> grand félicitations content naa trop machallah allah projet bi yalla na la jig mais man nak len dong la lay euh, wax quoi bul am xel ñaar ci man sa projet moy sama projet lepp lo joxagn ma dag ko man maa jox <laughs> dafa lay jàppale <laughs> yow sama graga nga Fab hmm? ngëj lan mo sayon sama mbir yow dafa nga na man nga ma um ha ah? lo xol mu yak. Lo yakar mu tass lo dugg dem nga naan danga may jàppale noo may jàppale où la l'expérience